munti nekk si biir Sénégal ñépp ñoo leen di teewlu ah Tawfekh mbokk yi mooy assurer seen visibilité Tawfekh production le leader dans son ah, ñu FLNG ñu yàgg koo dégg xam ne bato bi moom ak beneen bu ñu woowee FPSO ñooy liggéey ci frontière Sénégal ak Mauritanie ngir génnee gaz bi seetal ko bam jaar yoon. moo tax dayoom foo ko ci njoolaay ak ci yaatuwaay weesu na ko bato bu am kii la jëmm On na 300 mètres de, de large et puis de 60 mètres, euh, mètres de long et puis de 60 mètres de large. Donc, ak 6 tanker yoo xam te moom la ñuy euh, stocké euh, GNL. moom FPSO bi bokk nekk si projet bi. ñoo ñaar ñaar éléments yu am solo la donc bii bu nettoyé séparé bii day ñëw moom seddal liggéey fii ak stocké avant ñu koy exporté. ñi ko équipe d'inspection bu Sénégal defee woon ci FPSO bi ñëw nañ yéeg ci biir saytu ko waxtaan nag ñi koy liggéey ci délégation bi nag waa ANAM ñi ngi ci biir. waaw ñu ngi sant euh, euh, d'abord état du Sénégal mi ñu may ñu mën a liggéey ak euh, ministère du pétrole et des énergies à travers la direction des hydrocarbures di leen féliciter. ci synergie bi ñu boole bi ñu boole service état bi ñu liggéey ensemble pour euh, mën a gën a défendre intérêt euh, Sénégal ci ci projet bi ñu ngi koy rafetlu lool. ñëw nañ fii nag parce que dañ ci am cër cër bi mooy ne ñaari bateau lañ fi xool si tey bu ñu see Dakar dañuy ñëw ak suñu euh, mandargay réew suñu pavion bu ko defee dafa am cër buñ ciy am mooy ne dinañ ci def ay visite ay contrôle pour. am euh, garantie que dinañ leen exploité ci condition yi nga xam ne moom la euh, charte bi nga xam ne àdduna yëpp si la ñu ànd ne nii la ñu war a defaree bato bi nii lañ ko war a liggéeyee buy commencé liggéey nii la war a liggéeyee ñun ñëpp ànd nañ ci te am nañu xam-xam bi fi mu nekk nii ci état du Sénégal. Anam moom li ko gën a soxal mooy wàllu kaaraange gi. ñetti ponk yi nga xam ne liggéeyu Anam ci la ci la ci la tëdd. Euh, mooy sécurité sûreté protection environnement marin bu ci nekk dinañu euh, taxaw taxawaay bu am fula bu tegu ci xam-xam pour que bateau yi nga xam ne gis nañ leen fi. ñu yeggali liggéey bi ci anam yi mu waree. lépp luy defar gaz laaj ci xarala mi ngi ci biir FLNG bi kon agsi na frontière Sénégal ak Mauritanie mooy ne liggéey bi tàmbali